مصعب بن عمير أول مبشر بالإسلام على ظهر الأرض yéen sunu yàlla yu màgg yi ñu di ñaan sunu doom bii di Musab ngeen delloo suñu ko si diiney baayam ak maamam yi rawatina nag si way jóoram Musab ñun de dañoo bëgg nga leeral ñu tuuti si li nga xamante ne moo di diine lislaam alhamdulilah yow day laaj nga laaj bu am solo ndax lislaam day dafa ay ponk ndax Abdullahi ibn Omar nettali na ne dégg na ci yonent bi muy wax ne buniya al ala xams tabaxa nañ lislaam ci juróom ko lislaam am na juróomi tànk bi ci njëkk mu ne sahaadatu anna laa ilaha illa allah mooy nga seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla kon amul kenn ku yeyoo jaamu ku dul yàlla bi buur bi subhaanahu wa taala wa anna muhammadan abduhu wa rasulahu waaye na seede ne muhammad jaamu bi yàlla ndawam la yàllaa ko yónni ba mooy ñaareelu ponk waaye wa iqaami salaa nga daal di taxawal li nga mooy julli ndax it farada allahu ala kulli muslimin wa muslima xamsa salawaatin fi kulli yawm yàlla dafa farataal ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen juróomi waxtu ci bés bu nekk juróomi waxtu yooyu bokk na ci suba bokk na ci li nga xam te mooy tisbaar bokk na ci tàkkusaan waaye bokk na ci timis waaye bokk na ci geew lii la yàlla farataal ci yow comme ay juróom waaye wa itaa i nga génne asaka su mate ndax asaka kenn mënu ko génne te comme na ko waaye it soo ko génnee mu mët na ko jox ña ko war a jox comme ni yàlla wax ci alquran innama sadaqatu lil fuqara comme ni ngeen ko xam waaye nag wa sawmi ramadan ak woor li nga xam te mooy weeru koor ndax weeru koor it dafa nekk benn weer ci li nga xam te mooy fukki weer ak ñaar yi nga xam te moo am ci at mi ci fukki weer ak ñaar benn la ci yàlla tànn mooy shahru ramadan mu mubarak ñu war ko woor yenn saa yi mu ñëw nekk fan weeri fan waaye yenn saa yi mu ñëw nekk kon jullit bu ko mën da koy woor waaye wa xajjil bayt li man istataa ilayhi sabila waaye nga dem aj mag dem joxe li nga xam mooy la la fa war ci ay farat ci yow mi yii ma la limal yii di juróom mooy li nga xam mooy li ñu tabaxee lislaam yii nag tënku ci mooy tax ñu ne ci li nga xam moom mooy ponki lislaam ndax képp ku jàpp leneen lu bokkul ak lislaam mi la nga jàpp du diina ci yàlla kon li nga laaj am na solo bu baax a baax